Tafatine contre Boignan 2, le choc des titans. Suivez cet événement exceptionnel au Sénégal et partout dans le monde grâce au pay-per-view. Rendez-vous sur la plateforme lambdiaspora.com sur pay-per-view event et cochez sur la rubrique live. Vous accéderez ainsi à deux propositions. Le ticket passe pour une personne à 9,99 euros et le ticket passe pour deux personnes à 19,98 euros. Une fois que vous aurez fait votre choix, différents modes de paiement en ligne vous seront proposés, à savoir le paiement avec votre téléphone mobile avec l'application Africa Mobile Money, le paiement par carte avec l'application Pay by Card et le paiement par PayPal. Une fois que vous aurez choisi le mode de paiement qui vous convient de plus, remplissez les informations demandées pour valider votre inscription. Par exemple, Pour le paiement avec la carte bancaire, les informations demandées seront votre adresse email, les informations relatives à la carte bancaire en tant que telle et le nom figurant sur la carte bancaire et le pays concerné. Validez le tout en cliquant sur l'onglet Payer. et le tour est joué. Bonne suite de programmes sur Léoto TV. Tafatine, Boignan 2, un événement de Léoto Production. kon nag mbokk yi dimanche 19 décembre arène nationale système pay-per-view fukki combat benn takkusaan Tapha Tine takk ci rib Boy Niang numéro 2 le capacholi Tidiane Faye le professeur de Lansar ak Alioune Seye Junior ak yeneen juróom-ñetti combat pay per rek ngeen ko mën a seetaan ci 3W point lambdiaspora point com sant alhamdulilah ngi jàmm ça ngi see combat Boy Niang Tapha waaye yow man affaire combat moom ça m'intéresse pas. doo du ma lu tax. ah lu euh, daal. wala moo ci neexul lu nekk dina am lu la ci neexul ba tax bu ko ci wax. violence bi et nit ñi dañ naan facteur de développement mais gisuma ci gisuma loolu quoi waaw. gis nga umulaay. ku nekk à point de vue moom point de vue yam foofu la ko waxee kon dañ koy wane internet gis ko ah sëñ maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa lay fay soxna si. boo gisee ko Boy Niang waaye man nag ah xanaa bu waxee wax fan si laay wax de. man Boy Niang mooy mbër ah. na ko yàlla may ndam rek. ci barke am xamet ma ne man Boy Niang mooy sama mbër. Boy Niang wàññi poids la wax na nga gisee loolu. wàññi baax na xëy na loolu lañ ko digal mais ñu ngi koy ñaanal rek yàlla may ko ci ndam ci barke Seydina Muhammad. mbër boo xam ne mën nañ ne moo ko ëpp ci taay te boo ko conseillé mu ba nga ko conseillé mu bëree teey rek na teey rek def nànk rek bëri bëri bi Tapha moom mooy loolu mun na naxanteeg moom rek incha allah. merci beaucoup Oumou noonu laa ko dañuy daal di dëppaat rek xool moo Mané. ba léegi ah Pàcc Lambaay laa nekk topp événement bu mag boobu noonu sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. noo gisee combat booy ñaata Tapha. combat bi moom maa ngi gis ne day neex quoi. waaw dañuy boree to gëm naa ne moom Boy Niang da koy daan. koo faral Boy Niang laa faral quoi. mu man Boy Niang non damaa bëgg moom mu boree daan quoi waaw mu bañ a xeex daal waaw ñëw boree rek daan. waxal bu baax gis bi Boy Niang indi keroog ëppam pressam bi nan nga ko gisee. déggu ma. gis naa ne moom liggéey na daal liggéey na bu baax a baax moom gis naa ne moom moom day ñëw moom boree daan waaw loolu moom gis naa ko. a ah, xanaa ñu gën koo jàppale rek waaw loolu moom gis naa ko nañ ko gën a jàppale rek waaw xam ne moom booy bi moom mën na bore aussi am na jom quoi. incha allah rabi dañ koy nuyu bu baax a baax ah affaire bi de sa poste de amulaay ñu ngi fii Pàqu Lambaay Gabichon ñu fi indi moom moom fu ne moo ñu fay dugal sëñ bi maa ngi lay bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax. noo gisee combat booy ñaar tafaatin. waaw booy ñaar tafaatin de combat bu war a neex la. ci ñaari mbër yëpp. waaye combat bu xaw a difficile bu naqaree wax la nag parce que différence de taille bi waaye boo xoolee booy Niang bi ma seetaan nii mu entraîné fan yi nga xam ne dafa wàññi tafaay dafa wàññi Tapha Tine nag mooy mbër moo xamante ni bu fekkoon ne am na taxaw dëgg du neex daan waaye booy na booy ñaa nag dafa nekk mbër moo xamante ni dafa am ginnaaw ba pare dafa am ngeem ku mëntu daan ci làmb ji amul moom na ko tafaatin sóoraale bu baax ku mënul daan ci làmb ji amul te ba pare kii lay bëree bopp lay bëree waaw loolu mooy tafaatin nag euh, léeg-léeg mu perte combat boo xamante ni danga naan lan moo tax mu perte ko parce que léeg-léeg mu am bis bu léeg-léeg mu rëy waaye doo ko xàmmee suur boobu xaw ma ci ñi koy andi lay doon xaw ma ci préparation bi lay doon daal na ko contre Balla Gaye dal na ko contre Ama Baldé encore léegi nag euh, benn surprise la wone mooy contre Bombardier nit ñi xaaruñ ko woon ci loolu keroog mu ñëw def surprise waaye yeneen yi ñu koy xaar yëpp bu ñëwee doo ko xàmmee xaw ma nag dañ koy téye ci gàllaaj wala préparation bi moo dul baax euh, yooyu itam da koy def contre ñëw na gis naa ko muy muy muy muy muy sànni direct yoo xamante ne su àndoon na ku xam aar tuuti dina ko téye parce que keroog lim dégagé dafa bari torop balaa combat mu mel ni ku lase munul dóor munul deful dara dóorul benn coup daal la dóor Balla Gaye boo xam ne ku seetaan la mu xam ne coup bi daal na mais nag combat bii nag hmm, mun na am surprise mun na bañ a am surprise ñu bëri ñu ngi yaakaar ne Tapha Tine la parce que jàpp nañ ne moo ëpp doole waa ji lool waaye lu demeewul noonu ñaar Niang dafa am doole euh, te it ku mën a bëree la te ku xam ne muy def la moo tax analyser ci kii mooy daan kële mooy daan ko faral non man nag moom làmb moom daanaka far ci banaa ko ca taaj waaw ñi gis ki nga xam ne ni Boy Niang wàññi poids Tapha wàññi poids waaye ba léegi bu ñuy xool ci taay Tapha Tine moo ko ëpp taay booy Niang si fan la mën a jaar Tapha Tine. bari na su xeex bi jaxasoowee te téyanteewuñ maanaam kenn jàpp jàppantewuñ Boy Niang mën na ko nax daan suñ jàppantee su Tapha concentré wu torop ci combat bi bëgg a dóor waa ji ba tey mën na ko nax daan ko. waaw ñu def jàmm rek xam ne ñaar ñi ñooy mayante xaalis et ñi ci gaañu ak fan yi lii xew nii yëpp daal war nañ ko moytu et puis itam ñiy tëgg làmb yi ñu di sécurité bu doy et puis itam ñu euh, bana ñu bañ encore it yi di wane yenn violence yi surtout dafay encouragé day encouragé yeneen yi rek loolu laa ci amoon ah. merci beaucoup ok merci. ñu yëndoo ak jàmm. waaw kon dañuy dem ba léegi ah, ci doxantu bi yaa gën a xam. ca ba léegi ci doxantu bi ah moom père maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna si. noo gisee Boy Niang Tapha Tine. waaw Boy Niang Tapha Tine kenn ku si nekk mën nga daan sa morom mais nag euh, Tapha Tine mën nañu gisoon ak Tapha Tine mi léegi bokkutul waaw parce que boo koy séenu léegi ci mbir biir mbër yi da ko fay gis te toll na na mbër yi am na doole te it tëliwul bëri ñu si bëri nag dina yaakaar xeex rek moom mooy moom mooy combat mais Tapha xeex dong du combat am day bëri day bëri day xeex ñu si bare nag loolu mën na leen si tromper nag waaye daal mbër la waaw combat bi daal cinquante cinquante la waaw Boy Niang daal na def ndànk bu mu naagu nag ba yaakaar moo mën Tapha waaw non du ma tiital ndax xam nga mbër moom moo xam poids bu muy duggee si làmba c'est que da ngay xool sa adversaire nu mu mën a mel rek soit nga xam ne kii poids bii bi muy indi arrangé na la wala arrangé wu la yow nag bu boobaa yow yaay xam bi ngay bëreeg moom ndax mën nga ko wàññi wala boog poids boobu mën nga si bëreeg moom loolu day am si mbër. waaw supporters yi day di leen woo jàmm ak salaam sans violence parce que jamono ji moom làmba mi ngi bëgg a yàqu ñun ñëpp kenn ñemetul dem làmba ndax loolu. vraiment wax dëgg yàlla suñu sañoon daal ah ñu dem supporter jàmm ñibbiwaat si jàmm dëkk bi jàmm rek la laaj ku fi indi jàmm moo nu gënal ku fi indiwul jàmm moo nu gënal surtout jeunes yi nag xale yi léegi moom moo si raw seen doole mooy tax léegi ñuy fuddu di def loo xamante ni waruñu ko def. waaye war na ne xalaat ne nag dëkk bi nu noo moom réew mi sunu réew la nu noo ko moom bu fi yàq rek sunu alal la kon war na ne mën a defaraat lépp xam ne nag réew mi nag nun ko moom ba nu yàq ndax li ëllëg luñ fi yàq rek nun noo ko moom sunu leen koy fayee ko waat waaw. waaw kay jërëjëf. jama xew umulaay ko ci booy laa jam de ci booyee comme yéen a jël paay man booy laa jëm salaamaaleykum. umulaay <laughs> xoolal Modou maa ni mu toogee teg la ay tànkam yëgul dara de yoonam nekku ci. <laughs> sëñ maa ngi lay nuyu. sooy. tur la. yaayaa. ñu ñëw fekk na fi nga toog naka nga gisee boo Niang Tapha boo bon Boy Niang Tapha moom lu ma siy wax du bëri quoi xam nga rek lamb bëggoon naa ko trop mais ak lu fi jot a xaw temps yii passé ki combat Siteu Papa Sow bi tamit tax na ba amatuma envie seetaan lamb sax mais bon jeunes yi nañu nañu nañu nañu faaw ñu woo xam lu ñuy def ko en fait lii ni bien public la stade ak euh, sport tamit pour rassemblement la du pour diviser quoi en fait. donc bu ñu demee ba gars di tëgg ay combat pour ñu rassembler way tout donc dañu war a def seen fula tamit ñoom ñu mën a toog waxta wante gars yi quoi du ay violence affaire yoon yu demee noonu quoi. ayca merci kàddu yi rafet naa wax na lu rafet xale waaye dafa mel ni am doog de ñu xool ki toog mu ba léegi doxantu bi ah sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa lay fay. noo gisee combat Boy Niang Tapha waaw combat bu neex la. ndax ñu ngi ciy séntu bëre. ndax ku ne xam ne Boy Niang moom day neexal làmb aussi Tapha Tine tamit même chose en tout cas daal lu ma si mën a wax moom mooy combat bu neex la te ñu nit dinañ ko setaan ñu ngi siy xaar bëre ak dóor te ñoom ñaar ku ne xam na ne tamit ñu yàq làmb waaw loolu daal xam naa ko daal combat bi daal dina neex moom combat bi dina neex lool lool lool lool lool di si ñaan tamit mu àgg ak jàmm parce que gis nañ fi combat yu fi joto am gis nañ ñun ñëpp nu mu demee kenn kontaanu si parce que violence bi dafa bari si làmb ji ñu ñaan yàlla na mu yem fi parce que ku sañoon tamit boo tëggee sa làmb di nga ñaan yàlla mu àgg aussi ñun tamit amateurs yuy seetaan si ñëw seetaan si si jàmm ak salaam tamit yegg suñu ko tamit jàmm ak salaam tousument si côté boobu moom buggoon naa moom violence bi moom ñun tousument ñu jeunesse bi moom buñ ci mënoon waaw gën a gën a gën a gën a kii daal waaw dina dina dina baax daal waaw mais combat bi moom lu ma si xam moom combat bu neex la waaw man moom xam nga rek ñun moom waa Fass lañ. <laughs> waa Fass ba ci koo faral. <laughs> waa Fass lañ waaw di xanaa di ñaanal Tapha Tine rek mu am ndam rek. waaw ñun moom ñu ngi si ginnaawam di ko ñaanal yàlla mu am ndam rek waaw. ayca gën a jege gën a yey la sëñ bi maa ngi lay nuyu uneen doo ko dégg caméra même dinaa ko dégg sama noo def. sant yàlla. noo gisee combat ba ñaata Tapha Tine. waa combat bu neex la ñuy séntu. ndax euh, kii kuy yéeg la. ak ku ak ku ku bëggul xale bi yéeg parce que benn benn gone la bu buy des benn grand bu yàgg ci làmb ji waaye man damaa ragal damaa ragalal tafaatin ndax caay caay caay caay booy ñaa tiit naa ci lool waaye nag combat bi combat bu nar a neex la nar doon bu amee xeex ragalal naa kii euh, booy ñaa bu amee bëri ragalal naa euh, tafaatin parce que njool njool la ak ndaama yàlla nag def na nag kii booy ñaa mun na laa dóor te doo ko dóor man loolu laa ci ragal waaye nag bu bu bu tafaatin defee teey tuuti bu amee encadrement boo xam ne dinañ ko xaw yëgal ne da nga war a teey booy bi doo ko corko corko da ngay def ndànk bu la jàppee nga xam ne doo du waaxu moo koy daan bu teeyee mun na daan parce que parce que moo ko ëpp doole moo ko sut bu fekkee def na def na ndànk mun naa am ndam ci combat waaye bu deful ndànk moom booy bi da koy waaw man loolu gis naa ko yi xanaa di xamal ne làmb gi seen làmb la gis nga bu yàqoo ñoom ñooy perte rek yaru parce que man du ma wax jeunes yi dara parents baaraam parce que sa doom buy génn sa kër da nga ko war a yeb nga fi yëgal ko ne fi nga jëm yàgg seen loola yéen a yéen a fa ne comme que di leen dégg caméra comme ne caméra bi nga may dégg ni àdduna gis war naa amoon responsabilité sama bopp kenn ku nekk yaay sa carte d'identité wu waa kër da ngay fexe mel noo la gisee di leen naw sa si jàmm. merci beaucoup ah. Tafa laa nga. <laughs> Oumoulaye koy nuyu bu baax kon mi xoolee digg naa ñangatang bi laa nekk. booy ñaa adversaire Tapha Tine yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi fay doomu jàmbur. noo gisee combat Boy Niang bi xanaa nag bëgg tubaar fa kàll nag booy Niang jël ndam li man daal bëgg naa bëre bi du am 5 ndam li booy ñaa jël moom laa ko yéene daal ndax booy Niang xale la yaru na am na kër am na respect. moo tax ma bëgg ko. duma faramaareen déedéet du ma faramaareen sax waaye faramaareen dama cee bokk waaye man jaaj gi laa dëkk ak sugeer faramaareen sama maamu fa dëkk faramaareen ak jaaj ak sugeer benn lanu faramaareen laa am sëtit nag ñu koy wax na koy sekk waaw doomu Mamadou Seck ak ak tubaar fakkaal la nday mareem loo. loolu neex na la nga bëggee boo ko jour ji. xam lu ma bëgg mu bëree ko lu mu doon na ko ànd ak teey ak yaru ak discipliné. loo ànd ak yar suñu borom mën na la cee may ndam te it bu mu foogu ba ëpp lépp lu doon rek na ko def ci tekk tey bu defee tekk tey li mu bëgg dana ko am dana ko yenu ba ci kaw teg ci suuf lii maa la ko wax. baaraam laamu meer bi yay booy nuyu naa la. fay naa la sama doom. te combat Tafatine Boy Niang. Euh, Tafa Boy Niang Tafatine ah, man moom maa ngi si tafaatin maa ngi koy ñaanal mu dóor mu daanu mu gañe làmb ji yàlla def si ndox bu sedd guy mu bañ a am dara loo xam ne ndog-ndog la comme bii paase ñu xam ne lii fo la làmb la ñëpp suñu cosaan la ñëpp ko bëgg mais xam nga bu ñu si commencé génn yeneen yi si bokk tamit ñu bari dootuñu demati duñu yabal seen doom yi dem ñu ngi ah xale yi nañu yaru te xam ne tafaatin euh, kii nu mu tuddati booy ñaa ñoom ñaar ñoo bokk lépp. ay mag ak raq rek lañu làmb fo la liggéey la fo la li may ñaan xale yi daal mooy ñu boole yar ak teggin ku gañe xam na yow la yàlla may nam li ku daanu nga xam ne bu ëllëgee yow danga daan ñu yem ñu daal yemale ñëpp ñu nekk benn ku gañe féete sa victoire sa victoire ku gañewul tamit nga sant yàlla bu beneen yoonee da nga gañe man loolu rek laa amoon ci li may wax Tapha moom yàlla na ko yàlla may nam ci barke Seydina Mouhamed ci barke laa ilaaha illallaah moom laa koy ñaana loolu man li ma wax rek ba tey wallaahi warti gëru warti si doomu jàmbur si na ko ndam li non bul sonn booy ñaala yow ko sant ñang day am jom doo ko ñaanal mu gudd fan xam loo koy ko ñaanal yàlla na nga xam nga loo koy ñaanal yàlla na nga gudd fan bu guddee fan dana am jom ndax ay maamam la nuru lii kay dara du joy maa la wax lii. ana ana Boy Niang. nuyu naa la. maa lay fay. daan rek. daan kan. daan Boy Niang wala daan kan. bu combat bi Boy Niang moom barki sëñ Bamba Boy Niang ragalul lool sax. billaay wallaay wa taalaay man géej géej waaye laa dëkk de. mais Boy Niang dama koy yàgg a bëgg man. waaw képp ku muy bëral. man moom laay faral. te dama koy ñaanal ndam incha allah rabbi. mu bëree ko. boo Niang ñu ñëpp xam na ni moom boo taxawee day ñëw sa kaw boo ñëwee mu affronté la daan la moom ñu ñëpp xa nañ ko loolu te ambiance dalay ambiance la ba nga ba nga kontaan boo Niang moom ma macha allah ndam rek. wàññi poids la nga gisee tiitoo ci. non non tiitu si Boy Niang moom mu mën na bëree nu ne chaque combat rek ak nu mu koy waajalee. sans dépense yi adversaire am bu muy bëral rek boo ñëwee indi pois moom mu wàññi poids am boo ñëwee indi poids mu indi nu neex ñëw daan la waaw. Hmm? jeunes ñu yaru rek bu wàññi violence parce que ñu ñëpp ñoo far làmb ji après bu jeexe booy ñaa du la jox cent franc kenn du la kon yaru rek dagg sa bee. seetaan sa combat mu jeex nga nga dem ñibbi. kese kaddu yi leer na merci beaucoup. jaajëf bu baax ah Oumulaye doxantu la woon de ah fuñ toll. fu doxanta bi toll daa mel ne am naa ko ma gis mu yor mbuusu de eh dama ma sa glace bi. nuyu naa la. ah non fay naa la. yaa ngi ci jàmm. Ah, ñaari ñaari ñaari mbër yi am fula si li ñuy def de wax fa neex yàlla combat bi daal. ne doon combat bu métti nag ku daal daanu. koo faral tey moom ñoom ñaareel bi sama mbër quoi que le meilleur gagne. que le ah. ah, ñëw dal ak jàmm ñëw seetaan combat bi xam nga daal liñ ko def c'est le Sénégal ki gañ quoi lépp fi lay yem moo gën a nice quoi. mais ko faral yow dégg naa ko faral. mu ñëw tey waaw jël ndam yóbbu loolu kese laa bëgg ah. xeex laa bëgg nag man sama bëgg-bëgg laa wax quoi mu dóor ko daan ko. daan ko. yow yaakaar naa Tapha Tine Boy mën na doon Tapha Tine dóor ko daan ko. mën na ko kay caba acoli rek dóor ko daan ko jëlee ji Balla Gaye. gis keroog open press bi état ci am. Ah, loolu sama xel dal na ci quoi sama xel dal na trop ndax waaw looloo baax ko ni mu mel noonu wàññi poids bi suñu xel gën a dal si loolu waaw loolaa gis quoi incha allah yaa ngi ko yàlla may ndam